mbokk mbokku nuuru ni Touba ca kanam comme niñ ko baaxoo defee weer wu ci nekk rek ñu ngi fas yéenee ñëw indil leen li jot a dugg ci compte Touba ca kanam ci weeru avril li jot a génn ci compte yi ak li des ci compte Touba ca kanam ci weeru avril ci diwaanu Touba ci weeru avril bi 41 millions 430 mille dugg na ci compte Touba ca kanam Dakar ci taxawaayu Alaaji Ndaw ak ci fu Serigne Bousso dugal nañ 3 millions 102 mille francs Orange Money bi dièse 144 dièse 621 dièse dugal na 2 millions 489 mille 945 ba tey Orange Money ci numéro 78 544 33 33 dugal na 800 mille ci weeru avril avril bi Tigo Cash dugal na deux cent treize mille six cent quatre vingt onze francs département Kébémer ci njiital Serigne Gora Sylla dugal nañu huit cent mille ci weeru avril Ndar ci njiital Serigne Ridial Seck ak Soxna ramafal Fall dugal nañu trois cent deux ci weeru avril bi Louga ci njiital Serigne Moustapha Bassirou Mboub dugal nañ quatre cent quarante deux mille francs Mbacké ci taxawaayu soxna Adja Dior Gaye dugal nañ cinquante mille francs am na ay versement yoo xam ne toll na ci huit cent un mille dix neuf francs yoo xam ne dugg na ci compte Touba ca kanam waaye seen borom xamuñ leen mbuur ci njiital Serigne Mor Sourang dugal nañu six cent mille ci weeru avril bi Euh, communication bi dafa am montant bu ñu leen génneloon boo xam ne waroon naa dem ci benn rajo. finalement dañu mujjoon bàyyi communication boobu ñu dugal ko ci compte bi mu tolloog deux cent cinquante mille. Ross Béthio sëñ Alioune Ñing dugal na quatre vingt six mille francs ci weeru avril bi. Veli Ngara sëriñ Mbacke Gueye dugal na cent cinq mille francs. versement jaayante yi nga xam ne ay làmp la woon moom it dugal nañ lu tolloog 1 million 800 mille 500 francs ci weeru avril bi Thiès sëñ Mbay Sàll dugal na 630 mille ci weeru avril bi Typ soxna Xadi Jeng dugal na cent mille francs ci compte Touba ca kanam Goudiri Sëriñ ba dugal na cent 430 mille francs ci compte Touba ca kanam mi ngi ko def ci turu daayira bi ne foofu ci Goudiry Kaolack ñi ngi nuyu sëriñ Babacar Mbacke mu kabaro di xamle ne sëriñ Moustapha Touré dugal na sept cent vingt cinq mille francs ci weeru avril bi ngir waa Kaolack Diourbel ñu ciy nuyu soxna Daba Mbacke di xamle ne soxna Ndey Ndiaye versé na trois cent mille francs ci Diourbel Kujaan sëriñ Ibra Niang versé na vingt cinq mille francs foofu Ngunjaan tamit sëñ Modou Thiam dugal na cent cinquante mille francs Jawbe Serigne Baara Diop euh, dugal na deux cent mille francs ci weeru avril bi Jifeer sëñ Ousmane Ndiaye versé na cent cinquante mille francs am na tamit vingt cinq mille francs yoo xam ne euh, Daaru Xadim bañ defee inauguration bi xaalis buñ génne woon la mu des dugalaat nañ ko ci compte Touba ci kanam ci weeru avril bi Joal ci taxawaayu sëñ Basiiru Thiaw ak soxna maam Boussolo versé nañ cent cinquante mille francs Bambey Serigne Abdou Fall dugal na deux cent quatre cinq mille Woroso gi sëñ Jili Ndiaye ak euh, soxna May Mbàkke ñu ngi leen di nuyu ci seen taxawaay dugal nañ cent soixante cinq mille francs ci taxawaayu moo du Khary Gueye dugal nañu deux cent quinze mille francs Ngaye soxna ci teewa ci taxawaayu soxna Mati Bey ak soxna Maguette Jiite versé nañ deux cent quatre-vingt mille francs Pout Serigne Badara Ndiaye dugal na vingt mille francs Bokki Jawe seriñ Talakan verse na soixante-cinq mille francs Kayar soxna Maam Xari Mbacke dugal na cent quatre-vingt-quinze mille francs Touba Ngoy Serigne Assane Yadd versé na cent cinquante-deux mille francs Euh, Fouta Unaare Serigne Mbacke Lo versé na quatre-vingt mille francs Bustaan Soxna Naar Jaw versé na cinquante mille francs bu ñu boolee loolu yëpp day tax ba zone nationale bi egg ci cinquante sept millions six cent soixante quatre mille cent cinquante cinq francs ci zone nationale boobu yi tamit ñu xamle ne li ci ëpp Touba la bàyyi ko Touba dugal na quarante et un millions cent trente mille francs loolu nag duñ ci mën a ñàkk sant ku mel ni soxna Bintu Mbàkke mu sëñ Abibu soxna maam Faati Mbay bu sëñ Abibu ak euh, soxna Mbayang Jum soxna Bintu Saar ak waa Daara Xuduus yi ku ci mel ni soxna Awalo soxna Momi Dia waaye du ñu fàtte euh, Baay Faal yi weer wu ne dina am lu jóge foofu di ñëw ci tubaa ca kanam. weeru avril bi dugal nañ ci un million 500 yoo xam ne ñoom Baay Faal yi ñoo ko dugal ngir wane seen ak jàpp ci liggéeyu tubaa ca kanam. kon nag moo tax ba weer wi zone nationale bi egg na ci 57 millions 664 mille 155 francs liggéey bi nga xam ne mun Mountakha joxe na ci ndigal mu jëm ci université bi am na ñu jaarale seen i seen i barkeelu ci banque bi ci weeru avril bi li jaar ci banque bi mi ngi toll ci 30 mille am na nag ñoo xam ne dañoo ñëw ba ci siège Touba ca kanam ñoom it am na ñu fi dugal lu tolloo 80 mille yoo xam ne ay barkeelu la yu jëm foofu. suñu boolee montant bi day tollu ci cent dix mille yoo xam ne mi ngi jëm ci ndigal li sëñ Muntaxa joxe ci liggéeyu université bi ba tey ñu jëm ci bitim réew waa Espagne dugal nañ ci njiital sëriñ Malick Dieng dugal nañ six cent trente six mille deux cent soixante dix ci weeru avril bi Angleterre ci njiital sëriñ Fallou Diop dugal nañ cent quatre vingt mille cinq cent Italie waa coordination bi dugal nañ six millions cinq cent soixante seize mille quatre vingt Allemagne sëñ Abdou Salam Faye daayira Bayern dugal na 406 mille 37 francs Europe yëpp buñ ko boole boolee day toll ci 7 millions 810 mille 899 francs kon zone Europe yëpp buñ ko boolee day toll ci 7 millions 810 mille 899 francs ñu jëm Amérique Amérique ñi ci euh, Argentine Serigne Cheikh Ndiaye ak euh, sëñ Pape Soda Sey dugal nañ huit cent soixante sept mille cinq cent ci weeru avril bi Chili Serigne Khadim mbay dugal na cent dix huit mille francs États-Unis Serigne Sohaibou Seck dugal na huit millions six cent vingt six mille trois cent suñu totaliser li Amérique dugal yépp ci weeru avril bi day toll ci neuf millions six cent onze mille huit cent 9 millions 611 mille 800 ñu ngi félicité waa Amérique bu baax nag ndax ren ndax weer wi nii romb nañ sax Europe lu lu jafe la ñoom ñu romb Europe mais weer wi moom romb nañ Europe. zone euh, Afrique Afrique du Sud dugal nañ ci njiital Alaaji Guèye 187 mille francs Niger ci taxawaayu sëñ Mamor ñoom dugal nañ 101 mille 50 francs Cap Vert ci njiital Serigne Abdoul Ahad Amar dugal nañ 412 mille 200 francs. Gabon ci njiital Serigne Pape Ciss dugal nañ un million quatre cent mille francs Congo Brazza ci njiital El Hadj Diouf dugal nañu deux cent mille francs Mauritanie ci njiital Serigne Ibrahima Sarr dugal nañu un million cent treize mille cinq cent francs Mali ci njiital Serigne Alioune Wàcc dugal nañ un million quarante deux mille francs Côte d'Ivoire ci njiital Serigne Mor Fassa ak Serigne Thierno Thierno Ndiaye. dugal nañu un million sept cent mille francs loolu yëpp buñ ko boolee Afrique day am ci weeru avril bi six millions cent cinquante cinq mille sept cent cinquante francs six millions cent cinquante cinq mille sept cent cinquante francs bu ñu boolee li dugg Afrique Europe Amérique ak zone nationale bi muy biir réew mi lépp lépp day toll ci quatre vingt et trois cent cinquante deux mille six cent quatre francs 81 millions 352 mille 604 francs kon nag muy résultat boo xam ne bi Touba ca kanam tàmbaleeg léegi mu ngi doog a am ci weer wi montant bu toll noonu li waral loolu nag duñ ci mën a fàtte euh, taxawaay bu am doole boo xam ne def nañ ko ci wàllu communication moo xam ay spot locale la yoo xam ne def nañ ko wala ay plateau yu ñu def ci télé yi ak ay spot ci yenn télé yu mag yi loolu bokk na ci li yóbbu résultat bi foofu waaye tamit événement yu bëri yu dajaloo ci weer wi lu mel ni kasu rajab bi ak màggalu daaru muxti ak poroxaan yooyu yëpp daje dajaloo moo tax euh, massification def ci liggéey bu am solo ba tey ñu mën a egg ci 81 millions yi kon ci weeru avril bi total encaissement yi mi ngi ci 81 millions 352 mille 604 francs ñu dugg nag ci li nga xam ne moo jot a génn ci weer wi ci compte Touba ca kanam ci décaissement yi mën nañ cee jiital barabu fajukaay bi ñu taxawal ba bëreel barabu fajukaay boobu def nañ ci dépensé nañ ci huit millions six cent quarante trois mille neuf cent nañ ko ci euh, barabu fajukaay bi nekk bu bëreel barabu fajukaay bi nekk euh, Kër Gol moom it euh, dépensé nañ fa sept millions trois cent vingt sept mille cinq cent francs barabu fajukaay bi nekk Daaru Xadim moom it dépensé nañ fa deux millions quarante mille francs loolu buñ ko boolee ak tamit euh, charge fixe yi ci weer wii yi nga xam ne mooy dépense yi ñu def ci ay salaire ak location ak charge fixe yi weeru avril dañoo dugalante nag ndax weer wu la jàll dañ ko yéexoon a génne ba mu tàbbiwaat ci weer wi suñu boolee loolu day toll ci quatre millions cinq cent quatre-vingt mille francs quatre millions cinq cent quatre-vingt mille francs waa massification it jot nañoo def ay dépenses ci euh, màggal yooyu jot am lu mel ni daanu muxti yi ak euh, kazu rajab budget budget yëpp bu ñu ko boolee rek massification dépensé nañu deux millions deux cent cinquante deux mille cinq cent francs commission communication ci weeru avril dépensé nañ lu toll ci quatre millions deux cent quarante quatre mille deux cent loolu nag bokk na ci li ko waral ay partenariat yu ñu amante woon ak rajo locale yi nekk ci diwaan bi ak euh, télé bu mel ni Lamp Fall TV ak spot yu jàll TFM loolu bi ñu ko boolee moo tax mu egg ci 4 millions 244 mille 200 francs ci wàllu déplacement oto yi nga xam ne moom lu Touba ci kanam yor tamit gasoil bi ci weeru avril dépensé na ci 243 mille francs euh, total frais bancaires yi ak keesu siège bi buñ ko boolee day toll ci cent cent quatre-vingt-douze cinq cent vingt-cinq francs kon ci weeru avril euh, décaissement yi nga xam ne yëpp def nañ ko mi ngi toll ci vingt-neuf millions cinq cent quatre vingt mille trois cent soixante-sept francs vingt-neuf millions cinq cent quatre mille trois cent soixante-sept francs bu ñu génnee frais yi nag li des ci compte yi solde au mois d'avril day tollu ci cinquante et millions 767 237 francs su ko defee ci weeru avril bi kon mën nañoo euh, récapituler boole montant am yépp weeru avril bi li dugg ci biir keesu Touba ca kanam mi ngi toll ci 81 millions 352 mille 604 francs li génn ci weeru avril bi ci compte Touba ca kanam mi ngi toll ci 29 millions 585 mille 367 francs li des ci compte ci ci solde au mois d'avril mi ngi toll ci million 51 millions 767 mille deux cent 237 francs solde au 31 mars kees gi li desoon ci kees tubaa ci kanam ci weeru mars lépp lépp boo ko boolee li ci compte banque yépp mi ngi tolloon ci million cent 412 millions 683 mille 232 francs 412 millions 683 mille 232 francs solde net bi ñu am ci weeru avril toll ci 464 millions 450 mille 469 francs 464 millions 450 mille 469 francs kon loolu mooy li nekk ci compte Touba ca kanam ci weeru avril bi ñu ngi ziar ñi ñu bokkal liggéey bi yëpp muy waa commission des finances ak waa gestion des fonds di ziar nag sëñ Fallou Ndiaye ci liggéey bi waa Touba Info yëpp ñu ngi leen di sant di sant tamit waa bureau bi ku ci mel ni soxna Fat Ndiaye ci comptabilité bi ak euh, soxna Mbène Diakhaté ak euh, Moutala Seck ak yi ñu ngi ziar ñëpp jërë ngeen jëf